ñu kon ko xamee ci miracle bu Serigne Fallou docteur borom def gis borom seet gu leer gi. ki nga xam ne day def ramli. di seete si suuf di seetee si ndox di seete si biddéew wante nag araam mu seetee ci petaaw. sëriñ Mara Fall góor gu néew kattan buy fooy boppam gaaw a daanu moo ci mën jigéen bu mënul am doom sëriñ Mara def si xarañ lool sa jëkkër tukki mënul ñibbisi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 Serigne Mara Fall jërëjëf. salaam chers internautes Médina TV ñu leen di nuyu di leen ziar am mbégte ak contentement ñoo di leen dajal di leen dalal seen émission muy làmb ci biir Médina TV ngeen ci ànd seen doomu ndaw muy Lawder saa su ne nag ma ci invité nitu làmb wala champion boo xam ne mbëru làmb ki ma seet si tey muy Thiatou Médina ñu naan ko Buya Cheikh Buya tey dañ ñëw seet ko Médina mais ñëwuñu fi nga xam ne fa la fekk baax parce que ku ne Buya na 27 fa la nekk poste ba la waaye day buyoo Medina di buyoo jàppoo surtout fi nga xam ne fi la yoro fi la màggee muy jàppo tey ñi ngi fi nga xam ne mooy diggante Reims ak 31 muy diggante 33 ak 31 angle 20 gars yi nga wax Reims ay simb daa fi am ku mel ni Nino daa fi simb ak ñeneen ak ñeneen ñoom Moussa Pël Badara mais man sax jaar naa fi simb naa fi Saliou Moussa xam loolu ah mais balaa ñuy balaa ñuy xuus di sori tuuti euh, dañu naan kullu nafsi saali xati mooti bakkan bu ñoom dund dina ñam dee inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun nga xam ne mooy suñu papa. Euh, di Babou Ngom nekkoon tabu mazoru làmb daan tëgg ci làmb daan ñu bégal euh, ku xalaat ku dugg tey ci nga xam ni mooy 2STV xool bés bi nga xam ni Bécaye Mbaye invité woon na ko fële ci 2STV yi defoon fa tëgg bu solo boo xam ne yaakaar naa ñi def ñëpp euh, ci ay bàkkam la ñuy jël di ko ci teg di ko ci tamtantal mu nekk lu am solo ñu ñaan yal na ko yàlla xaare àjjana yàlla na dëddoog jàmm njaboot bi mu fi bàyyi yàlla ci yàlla teg loxo balaa mooy xuus di sori damay nuyu buyoo na ko nuyu buyoo làmb tey dafa perte suñu papa gi nga xam ne mooy baabu Ngom génn àdduna tey avant ñuy ngay xuus la ngay wax ci loolu. waaw di ko jaale di ko jaale ahlu làmb xam waaw di ko jaale famille xam nga na baaw mu ngom moom kenn la woon ci làmb quoi xam nga da doon jàppale làmb te da doon dundal làmb kon tey su fi jógee xam nga yoon la axlu làmb ñëpp nakarlu ko waaw di ko ñaanal nag yàlla na suuf oyof ci ko am waaw di ko jaale famille bi yëpp di ko jaale tamit ahlu làmb. Mhm. làmb tey euh, làmb tey perte na. Euh, parce que tey ku ne làmb ne tuus Babou Ngom da ciy yokk tuus si tuus tey tuus séeréer tey bu nga tëggee ci làmb euh, bu la nga yëg. waaw xam nga loolu moom dafa bokk ci làmb comprendre nga waaw ndax Babou moom Babou Ngom moom boo ko génnee ci làmb presque làmb dara desu ci waaw ndax moom joué na ci lu bari waaw waaw amaana tey yàlla jëlee na ko fi quoi waaw nee leen tamit ku jur doom perto waaw di ko ñaanal suuf yàlla na oyof ci ko am di ñaana nag doomam boobu noonu comprendre waaw li mu yenu xam nga mu oyof ci kawam waaw làmb tamit gëstu ko jàppale ko waaw bu baax. loolu la ñuy waxaat muy ki nga xam ne mooy suñ papa Baba Ngom tëdd na feebar lu yàgg ah. mu nekk loo xam ni waa làmb laa ci wa interpellé waat lu ci mel ni CNG nitu làmb yi bu ñu feebaratee na leen ñu jàppale te yàlla tax parce que social bi il faut ñu siy dox neex na quoi euh, dañuy nekk di bëggee saa ne mais nit day feebar di wér bu nit feebaratee bokkul ci njabootu làmb CNG nañ ciy taxaw ku ci pa ku ci mel suñu papa Bécaye Mbaye di ciy sonn di ci daw ku feebar mu daw gauche droite ba gi demoo Ndiaye problème mu la de guerre 2 bi gis ngeen ko mu reyante ci dem gauche à droite nañ ciy taxaw waay gars yi euh, bu yo fi ñu la fekk tey mooy fan. waaw fii mooy jàppoo di 31 waaw dañ na affaire ñu ko yemale fépp comme que booy yi tamit dañuy sonn suñu affaire comprendre waaw comme ko booy dañ ne ñoom dañuy sonn suñu affaire waaw dañuy jaayante tamit lépp lu ñu xam ne tey. dañuy seet si rek waaw ñoom tey foog ñu bokk si quoi waaw ndax Médina bi yëpp lañ wax waaw fépp fu ñu am bu ñu amatee interview dañ koy partager ak ñëpp waaw comme booy sonn ci ñun rek waaw ñu joxaat leen luñ moom quoi waaw. tey bu bu bu tey bu bu bu jógee la xale yi jóg la mooy secret bu ak xale yi balaa ñuy dugg ci làmb nga wax parce que xale yi dañuy gis say combat euh, parce que Médina TV da ci def liggéey bu solo heure bu dañuy ñëw gis départ bi euh, jël say open presse jël point de presse yi mais souvent ñi ci ñi ci ëpp di ñëw. xale yi lay nekk ñi nga xam ñu ngi commencé dix ans jëm jëm quinze ans. waaw mooy mag lu mu moom rek law nga jokk ko xale lu mu moom nga jog ko xam nga waaw ndax ñii amaana ñoom avant avant làmb la quoi xam nga ñu doon samay boo yoo xam ne tamit xam nga dañuy sonn ci man waaw déggal ma tamit quoi comprendre nga waaw na ñu ñëpp samay waay lañ bu ñu soñoon tey waale gérén bi xam nga waaw benn combat ñaari combat nga jëlu kan ndax yéen nañ ma lu raw loolu xam nga na ñoom samay waay lañ samay lépp lañ su ma amee nakar dama leen di gis su ma amee bànneex dama leen gis kon yoon la ma ñëw fii ko est que bu xam nga ne erreur waratu la. parce que boo gisee xale yu topp sa ginnaaw euh, tey mbër bëri na dix combats li muy am li muy li muy dégager euh, li ngay dégager moo ko ëpp ñu gis maintenant tey boo ayee ñëpp jóg bu est-ce que xam nga lii ñi leen di téye xam nga ko. waaw xam nañ liggéey tey mooy ndam waaw ba pare nekk sa rukk di liggéey xam nga di làkkatu waaw xam nga xam li la war quoi xam li la war bu baax a baax nga nekk ci. waaw te ñu ngi suñu rucc quoi di waaw def lu ñu war quoi di entraîné teel a tëdd xam nga waaw di dund suñuy nit lépp waaw kon erreur waratuñu comme ni nga ko waxee rek ndam rek moo ñu wax lépp incha allah bu neexee yàlla waaw ndax ñam nañ ko neex nañ waaw bàyyi nañ ko amul fenn. souvent dañuy gis mbëri ndaw yi euh, léegi mbëri jël benn benn slogan boo xam ne léegi muy milieu euh, mbëri ku ci yaa ngi dem ci milieu yi dem ci soirée yi taxawaalu affaire yooyu euh, bu yow gisuñu la fenn pour le moment gisaguñ la fenn quoi. est-ce tamit euh, doo dem ba tollu benn succès bi daw di dugg ci milieu yi parce que booy sànq dégg nga leen avant émission yi di commencé dégg nga law ñun bio la xam ak koñam tëdd. waaw noonu la xam nga tey jii nii bu àdduna di topp sa ginnaaw xam nga ngay yëkkati ay mag di yëkkati ay kilifa xam nga ñuy jaayante lu bëri xam nga ndax yow. waaw kon tey da nga leen war a delluwaat cër boobu quoi xam nga cër bi mooy lan mooy buñ si dara loo xamante lu ñàkk fayda la quoi comprendre waaw loolu moo loolu loolu mooy cër quoi te ñun tamit loolu lañ leen amal ñoom buñ nee tey su ma naroon def dara ñëw ne ma bu yo bàyyi la may bàyyi ndax ñooy tey ñoom ñooy samay kilifa daal ñoom ñooy sonn ci man benn affaire moo am jour koo benn wax bi la lay wax ne la bu dafa dégg conseil même buy romb xale na taxawal mu taxaw xale bi wax bi mu dem ree lan la. waaw mais loolu mooy àdduna law. déggoo dama ne la ñii maak ñoom avant làmb la. waaw te du làmb mooy tax tey jii nii xam nga may ñaaw ñoom wala may def ak ñoom dara waaw ñoom lu ñu wax rek waaw quoi ñoom lu ñu wax rek waaw waaw. tey Bouye mun nañ ne un la def ci arène euh, li nga xam ni mooy géewu làmb un nga ci def mais yàlla suturaal la ci nga def ci trois combats def ci deux victoires am ci benn defet sa premier combat nga bëri kaa ki nga xam ne mooy Tafa Madi Madi suma juumula nga bëri moom euh, tey mun nañ ñëwaat tuuti ci combat bi euh, Bouye bi nga demee ba nga xam ni léegi nag caaxaan jeex na mooy at bi génn seen diggante ñaar nga tourné gis supporters yi lan nga njëkk a yëg parce que dugg ci làmb bëre xam nañu coono gi ci ne lamb préparation coono bi ci ne mais bi nga jàkkaarloog mu arbitre sifflé lan nga yëg. waaw da xam ne fii tey jii nii jom moo la war rek ak fulla ak fayda xam nga ak takk sa fit waaw ndax lamb moom tapet du ko def quoi soo tapetee moom bu yóbboo moom da nga teel a jël say bagage waaw génn lamb ji quoi ndax lamb tapet du ko def waaw da nga xam ne fii tey bésu rayante la quoi ndax àdduna moo topp sa ginnaaw yow yaa woote ni ñu wuy si la xam nga. waaw kon waneel loo xamante ne tey jii dañ lay topp quoi moo tax ñun buñ duggee ci làmb dañuy def lépp lu mu war waaw ba kenn duñ ne cam quoi waaw. Euh, bi nga bëree dafa daan la ñu jàpp sa nga jóg jégalu ñëpp après foofu man réflexion mu njëkk ñëw ci waaw loolu man du ma la fenn man sama premier combat ma ko ñàkkee tey ma ne làmb mooy loolu ko quoi comprendre nga dama koy bàyyi. Hmm? mais waaw mais sans dara après boo day ñëw xam nga da ngay gis ñëwee di la di la yokk di la pousse xam nga waaw ba tey jii nii li yëpp am quoi kon tey ñoom dama leen jëlawaat njukkal di leen wax. lépp ñoom la waaw tey ñu ma waroon ñu ma waroon kanamu waaw yow lii wala lii xam nga mën naa bàyyi mais ñoom ñoo ma ci gën a puusaat aw ma seen fay di leen waaw di leen wax di leen ñaanal bu baax barke Sëñ Tuubaa waaw aw ma seen fay. bi nga jógee ci loolu bëri ki nga xam ne defe naa mooy faramaaren moom nga mujjee bëril mu nekk combat boo xam ne ñu gis buye bu déterminant buye bu changé parce que premier combat bi sax ñëpp nee nañ dafa teel ci biir wax ñëpp dañu naan boo xee ñu la la teel dafa teel bëre dafa teel a mais bi ñu seetee ki nga xam ne mooy sa coach euh, waxtaanam moom ak nga xam ne mooy Sowru Fall ñu dénk ñu nañu kii day nekk champion. ma ne mais père Bouye li mu mujjee bëri mënuma déedéet prochain combat bi ni ñëw ngeen xam ne Bouye champion la ñu gis changement bu gaaw ci Bouye euh, ci bëri bi ci xeex bi ak ci mental bi lan euh, coach yi ñoo ko def ci yow dafa nekk loo xam yaa ko décidé sa bopp. waaw ñoom tamit joué nañ ci lu bëri quoi ma la ñuy nuyu ñoom ñëpp xam nga. waaw di nuyu Colobane mbooloo bi yëpp. waaw ñoom joué nañ ci lu bëri tamit xam nga nit tamit su nekkee daam si loo nekk da nga ñaan chaque jour nga ciy avancé waaw te ñu ngi teg ay pas xam nga waaw ñu ngi avancé waaw ñu ngi jàng lu bari ñu ngi mottali lu bëri lépp li nga xamante ne manqué na ñoom ñu ngi ciy waaw ñu da leen jébbal suñu bopp ñoom lépp lu ñu def rek noonu la waaw. Euh, nga jóge ci loolu ñëw ci sa sa troisième combat ñu ñëw gis beneen bu bu bëri indi beneen facette indi xeex toog ci tànkam benn benn moment sax mbër mi daw na jël la mais yaa ngi résister di xaar euh, ñu ñëw nga gis keroog combat bi nga nëbbu bëri bi indi xeex lu war a loolu. waaw xam nga moom laay wax rek xam nga làmb moom tey jii nii la am na ñoo xam ne moo tax lamb bul bul basé wu si signature quoi xam nga. Mhm. yow ku xam ni ku ma xam-xam ni yow law te jii nii man yow kaay dee moom mu gënal kaay lépp loo gis comprendre nga tiim góor yàlla si signature nga taxaw ko ne ko naa la dóor ba nga xam nga mhm. ñëw defoo loolu quoi xam nga. waaw kon lamb am lii am signature ak lii xew si géew bi bokkul comprendre nga waaw moo tax Zoro ba ñëwee dañ pare woon pour jëflante ak moom ndax moom moo taxaw taxawoon xam nga wax Sénégal àdduna ñëpp dina ma dóor dina ma duma dina ma daan moo tax ma ñëw andil ko loolu waaw ba pare tamit bëre ñaar koy def quoi law hmm? waaw bëre ñaar ñoo koy def ndax tey bu noo ñëw préparer sa combat comprendre nga waaw mbokk sonn ci yow xam nga waaw nga ñëw di wane yaafus wala ngay ñëw di basaate sa combat waaw bëre ñaar a koy def waaw moom dala woo ci xeex ba pare daw téy boppam waaw moom lépp lu mu bëggoon daa fekk man xam naa ko ndax ñun écurie bu ñu nekk waaw dañuy tàggat ci lépp quoi law waaw dañuy tàggat ci lépp te bu ñuy dugg si géew waaw dañuy jëlaat suñu bopp jébal leen ko xam nga waaw ndax gis nañ liggéey bi quoi mi ngi avancé nànk-nànk souvent dañuy naan mbër mu ndaw euh, warul di dóore parce que mbër mu ndaw buy dóore lu bëri rek pour mu jotaat avance day met ba fu ñu toll nii gis nga sa avance day wër day circuler xam nañ ci tuuti wax nañ ay mbër yu bëri yoo xam ne dañ lay avance mais buñ ci ñu bàyyi rejeté jëli keneen. waaw mais surtout sa dernier combat bi dernier sotti li nga wane ko gërëyee boobu nga wane noonu. waaw mais mais loolu loolu du dara xam nga tey jii bu ñu xoolee ñoom bu ñu xoolee foofu rek tey jii ñoom dañuy juum quoi ndax làmb li ci kanam moo ëpp xam nga moo gën a metti moo gën a tar ah, mais tam buyo xale yi bëgguñu ku leen di dóor de waaw mais gars yi fii mooy loolu bëre dóor la rek xam nga tey mën nga ñëw bëre suba nga ñëw dóor tey mën nga def li wala nga def li xam nga mhm. combat bu nekk ak lu mu laaj la comprendre nga mhm. waaw mais ñun pare nañ daal si bépp côté xam nga waaw na gars yi ñëw daal ñu bëre xam nga waaw ñu ñëw ñu bëree xam nga ñu ne xale lañ dañoo nekkoon ci ay affaire yu bëri xam nga mhm. yàlla dimbali ñu si lu bëri waaw kon tey dañoo war a ñëwoon suñu bopp si làmb ko comprendre nga waaw di ñaan yàlla bu baax a baax nag xam nga si lii ñu nekk nii comprendre nga waaw ñu dem ba taral suñu yaay xam nga dabal ko si kër képp koo xam ne yaa nga sonn si luñ tamit nga gis si sa bopp waaw nañ jël avancé ñu bëri ko waaw ma loolu laay wax. ba pare ñu si bëri nee nañu nee nañ buyo dégagement am maanaam mën nañ ne ndakaaru yëpp ay génn ñuy gis xeetu nit bu ne ñu ko gis nga xam ne mooy sa génn butéel bu ne bu li ngay sangoo nee nañ dafa bëri trop boo demee làmb gi tamit li ngay sangoo dafa bëri ah, ma ma sañ sëñ Saliou na ko waa mais bu lan la mu ne ma ah ngemu mag la yor de bu yeboon na xale yi baa ci xel loolu dëgg la wala dëgg ngemu lay diis wala wala gaa yi xër ci yow. ngemu lay diis ku am ne a départ law ma takkal rek ma takk. waaw sango bi dafa bëri tamit bu yow ñu samay mbokk lañ rek xam nga ñoom bu ñëwee ne ma takkal damay takk bu ñëwee ne ma defali may def xam nga waaw ndam noo ko amee daal jar na ko quoi amee ku si ñëw ne ma takkal damay takk mais bii di ñëw moom waaw dinañ wàññi bëri quoi si côté loolu noonu. waaw incha allah. kon da ngeen gis ni que ni euh, loolu sentir ngeen ni gis ngeen ni muy commencé parce que gars yi ñu ngi wax ah dëgg la buya dëgg la gàllaaj neex na lépp ne mais man ci man premier première des choses mbër mooy mbër day entraîné bu entraîné ba am confiance parce que mbër mu taxaw am confiance ah tey mën nañu wax tey bu ñaata séance say def ah, ci biir combat après combat ak nan ngay entraîner ak euh, nu mu tuddati sa hygiène de vie tamit euh, ci lan nga ko teg parce que tamit boo bëggee nekk champion il faut tam nga am foo teg sa bopp tamit am foo teg fa bët. waaw noonu la demee law comme tey jii nii xam nga. waaw ñun suñu bët fu sori lañ ko teg quoi comprendre nga waaw xam nga mbër bu ndaw yenn moyens yi xam nga mhm. lu bëri tamit yaa koy doxal sa bopp li gën a dem xam nga di gën a prouver a la gën waa mais gars nu mu demee noonu sa waay xaaral jël beneen avance boo xam ne yëguñu ko waaw da ngay toon rek <coughs> da ngay xam nga waaw ñun dañuy dañuy dañuy xoolee tey jii nii soo amee combat mu nga def trois séances mais tey jii nii comprendre nga bu saison bi tëjee da ngay def ñaari séances comprendre nga mën a meñcee quoi xam nga xaw a waaw li waaw nekk ci li nga war a nekk quoi ñun daal ñu suñu entraînement law lu ñu entraînement mayul waaw amul leneen loo xam ne tey jii moo ñu koy may quoi comprendre ndax xam nañ njëriñu entraînement ndax dem nañ si géew fii bu kenn nax kenn tey boo entraînement wal boo demee waa arène nationale hmm. force day feeñ parce que sëy naa xam day feeñ boo leen dalantee benn yoon ñaari yoon soo entraînement wul day feeñ moo tax tamit di lancer message bu kenn yab say supporter quoi. jaayante leen di entraînement xam nga boobu la gisee kontaan quoi ñun entraînement mooy suñu lépp waaw avant làmb sax lañ doon jaayante bu baax nekk si entraînement bi kon tey bu ñu si duggee dañuy gën a xar suñu tànku tubay waaw def lu ñu war quoi waaw. kon da nga gëm man dama euh, nga Eumeu Sène li mu wax keroog. gaa dañ ko dëkk micro di ko laaj na ko mbër nan la war a dundee mu ne mbër li mu war a dundee mooy entraîner chaque jour ñu ne ko lu tax mu ne parce que yaa bàyyi lépp na damay nekk mbër. kon sa liggéey la saa su ne heure bu ñu la fëggee war na fekk nga pare bu yow toll nga foofu ci làmb wala tolloo ko foofu waaw mais mbër bu ndaw foofu la war a toll fa nga toll ne beneen combat loolu ku parewul du ko def comprendre nga moo tax comme lu mu wax rek dañ koy dëggal comprendre loolu mooy secret mbër mooy première chose mooy entraînement après leneen lu xamante ne tey xam nga lépp da ciy mottali ko rek xam nga waaw dañ koy mottali waaw mais entraînement mooy première waaw yaa ngi sóor parce que dafa am ay mbër yoo xam yu bëri yoo xam ne dañ tolloon ci euh, fi nga tolloon ni dem jël loo xam ne waruñu ko jël mooy anabolisant yoo xam ne baaxul dëgg la ay complément alimentaire yu baax la ñuy wax mais est-ce que yaa ngi sóor bëgg benn poids bi bëgg yegg fenn jël ay affaires yoo xam ne ab ëllëg la indil gàllankoor yaa ngi koy sóor loolu waaw ñun tollaguñu foofu quoi ñun nekkuñu di def xam nga ñun hmm. mais say morom tamit da lañ ko proposé woon la jox leen ko ñu def ko yaa ngi ñu ngi ciy baax ndax hmm. ñun ay booy lañ quoi loolu ñu entraînement te suñu yaram nangu na ko dañ koy moom waaw kon tey jii duñu waaw duñu gis loo xam ne day sacrifice suñu laaf ñu koy def waaw dañ ciy nekk bu baax baax xam nga nekk si entraînement topp si entraînement naan say vitamine ak lépp waaw waaw heure boo ko waree jël nag si jël boo xam ne jëru jaar yoon la waaw gars yi dinañ la wax yow jëlal lii waaw mooy logique quoi. bu mi ngi envisagé keroog bi sa combat da nga ne euh, law damay ñaan gars yi gars yi teg ma loxo ma génn dem génn dem bitim réew defar samay ref ñëwaat ba léegi yaa ngi ci foofu la. Mhm. waaw ñu ngi si foofu tey jii nii ñu ngi ñaan tamit xam nga képp koo xamante tamit mu nga ñu teg loxo xam nga. Mhm. waaw ñu génn dëkk bi xam nga waaw gën a utiwaat doole ndax gis nañu ñu gars yi bëggee quoi law ni soo nekkee boroom jom comprendre nga. Mhm. waaw daa am lu bari loo xamante ne tey jii nii même bu manqué ci yow. Mhm. da ngay sabab lu xam nga say mbokk bu ñu ko déggee mën la dimbali ci loolu. waaw ñu ngi waat foofu di ñaan ñëpp nag waaw di lancer message ñëpp képp koo xam ne mu nga ñëw jàppale bu yow tamit xam nga si loolu nga ñëw jàppale ko ci waaw. mais yaa a tukki da tey am na ay port yoo xam ne yaay demal sa bopp parce que tey mooy li nga wax léegi nga ne foo xam ne mooy loolu quoi moo tax xam nga ñii tey pour ñu dajale la nga tukki day metti mais est-ce que ay jéego pour xool ñoo xam ne dinañ la mën a taxaw euh, nga teel a bu ko defee li nga li li nga bëgg nga teel ko jot. waaw waaw doxuñu ci nag quoi doxuñu ci ñu ngi toog xam nga waaw daa jotagul quoi mais lu jot yomb xam nga waaw ñu ngi doog a dugg si affaire yi bu ñu si duggee yàggul mais bu wax naa la léegi nee la da loo xam ne ay mbër yu mag dégager wuñ ko baa loo xam ñu ngi a dugg yàggul yàlla dimbali nga dugg nee naa la un an nga def ci làmb coow topp la kon fu ñu toll nii tout droit pas à l'erreur lépp looy def yaa ko wax léegi yaa ne xale yi ñoo tax kon da ngay woote da ngay def message alerte woote ni gars yi da nga bëgg a tukki da nga bëgg ñu jàppale la bu ko defee yow feeg déwén heure bi grand combat waaw incha allah loolu la ñuy ñaan te yàlla dina ko def incha allah ndax saison bii nii law dañ si war a wane suñu bopp comprendre nga waaw ndax am na boo yu bëri yoo xam ne ñu ngi si lamb ji comprendre nga mhm. dagg seen yaram def ay business ak lépp xam nga waaw booy dañoo war a xam nga lem ba mu toog ci quoi comprendre nga hmm? waaw dox waaw bii laay wax quoi côté bii booy yi nga xamante ne dañoo bëgg a yeb waa côté bii du amati dafa am booy yoo xam dañoo bëgg a yeb waa Médina waaw dañoo bëgg a yeb waa Médina Ndakaaru sax laa dañoo bëgg a yeb waa Ndakaaru comprendre hmm? nga te war ñu leen yeb tey jii nii bu ñu dimbalee tey ni nii hmm. comprendre am na foo xamante ne tey jii bu fa si fa amatul benn booy buy taxaw di wax ndax ku bëgg a fëkk foofu ñun ngay dajal comprendre nga kon tey jii nii ñun lu bari leen ci làmb ëllëg ñoom dañu war a jàppale ak bépp jàppale boo xamante ne tey jii nii xam nga war na ñu def ko comprendre nga waaw di lancer message nag si lépp gars yi jàppale mbër yi quoi gan leen bàyyar xel ndax ñun seen i rakala seen i porte la ñu war a doon balaa kenn di jot si ñoom xam nga jot ñu ñun waaw kon daal bëgg a taxaw nekk mille de Berlin balaa mbër di fi franchi dem di dal ci palier yu mag yi dal ci yéen waaw yaa ngi gis tey jii nii ana ñoom Franc ana ñoom ana ñoom Doudou Sané xam nga ñoom ñu bari tey jii nii tey balaa ngay jot si Eumeu seen Doudou Sané daa ñëw taxaw balaa ngay jot si Modou Lo tey jii nii Franc daa ñëw taxaw balaa ngay jot si Ama Baldé ñoom Zogob dañuy taxaw ñoom ñu dañuy ñëw taxaw comprendre nga ñun tey loolu lañ war a loolu lañ war a présenté côté bii quoi waaw mais pour ñu pour ñu am ko dëgg waaw gars yi foog ñu pousse ñu quoi xam nga waaw mbër yi nga xamante ne ñoo nekk fii tamit ñu doon ay mbër yu mag waaw ñu ñu fexe loolu am waaw ndax soo nekk ak say rakk tamit xam nga da leen di jiital xam nga waaw dañuy da jiitu ñu topp sa ginnaaw buñ toppee sa ginnaaw nag yow nga tette leen xam nga ba loolu mën a nekk te loolu mën a nekk day nekk sax incha bu neexee yàlla mhm. est-ce pare ngeen pour dem gis ñi nga xam ne ñooy mbër yu mag yi toog waxtaan a ñoom pour xamal leen ni désormais mbër mu fi jóg bëgg dal seen kaw jiitu ci yéen parce que Eumeu Sène da koy wax ah suuf souvent boo waxee mu a la kii mi ngi nii moo loo tey boo waxee mu a la Franc ngi nii toog est-ce que tey yéen xaar ki nga xam ni mooy seen grand frère di Gris waaw loolu logique na loolu logique na ñu siy xar suñu tàng tubéy bu baax ndax ñun ñëpp réeroowuñu ku nekk yaa ngi déggante ak sa morom ndax ñun tey dañoo ñëw mujjee jee judd fii mais tey ñun dañoo ñëw ba seen tànk lemu jébbalu xam nga jox leen suñu bopp ne leen yéen lépp loo xamante ne tey dafa waaw dafa war a nekk suñu yéen a ko war a def suñu comprendre nga kon tey jii ni kooku méttiwul waxal quoi te ñun àdduna du neex tey tey tey ba ñu sut leen waaw kon dañuy suufeel suñu bopp rek comprendre nga ñoom gën a jàppale booy gën leen baaxel waaw ndax ëllëgu Médina ñu ñoo koy yor yi incha allah bu neexee yàlla waaw. tey du ñu dem te du ñu waxtaanee li nga xam ne mooy Gris Bordeaux Zarko mel ni Zarko da leen bëgg a yab Zarko daal bëgg dugu dugg na na lu ko neex lay def Médina gën nga keroog dañuy sotem ne na Médina bu ma bu ma paree ci Gris sax damay jëlaat booy mais Zarko yab na waa Médina waaw may jaalaale xam nga di nuyaale bébé Diène xam nga waaw di ko ñaanal waaw ne ko yàlla na te nag jàmm xam nga. moom it sax waroon nañ waroon nañ ko nuyu bi ñuy tijji si digg bi ba ba jën ñu koy ñaanal moom it yàlla yëkkati ko parce que yaram bee xaw a sutante dafa waroon bëri ki nga xam ne mooy Zarko ko jën moom ñëpp xam nañ bébé jën bébé jën bu paree moom non amul mbër mu mu bu koy jaaxal ñu koy ñaanal mu jotaat formam quoi ñëwaat sa doomu ndey Cheikh Bouya Ibou Afia ñoom Aara Fass boo yëpp ñu ngi lay bëggee di la ñaanal nga jugaat mooy yoon. Mm-hmm. waaw di ko nuyu dina ko xam nga na dalal ak jàmm xam nga moom sasu naa la ko quoi moom suñu suñu suñu suñu fierté la waaw tey bu ñu demee ba dugg ci làmb moom moo ci dugal xam nga dañ koy ñaanal xam nga yàlla yëkkatiwaat ko bu baax a baax comme lu ñuy wax rek waaw moom bu paree amul kenn koo xamante ne dina taxaw ci làmb ji mu lay baaxeel xel wala dara di ko ñaanal nag xam nga yàlla fëggaat ba ko mu jug xam nga wér am tan am kàttan ju bëri yàlla mooy ko ndam ci kaw Zarko waaw. waaw mais giri du yooyu nag. Hmm. giri du yooyu. giri moom xam na li ko war quoi xam na li ko war ci làmb bu baax waaw rakk xam na rakk moo ko jëloon. yàlla def nattu xam nga. waaw rakam gaañu si tànk xam nga moom mu ñëw jël avance bi comme moom xam na li ko war a war li ko war. Hmm. li rakam waroon def moom na ko ñëw mottali comme moom muy mag bi waaw na ñëw xar tànk tubéyam maintenant ñëpp génn dooleel ko xam nga yàlla may ko ndam ci kaw Zarko quoi waaw. pare ngeen pour ñëw def comme li waa dajaloo mbër mu ci am combat ñëpp àndandoo jàppale ko ci contact yi pare ngeen ci loolu Gris Bordeaux parce que Gris euh, bu bëreeg Zarko dafay soxla ay xale yu mel ni yow yu mel ni Ibou Afia euh, Serigne Ndiaye mooy li nga wax noonu ay bébé jën jën kayre ay mañi kayre ñoom ñëpp tey Gris da ci wetam tey yéen lancé leen message Gris na ko bëgg nañu jàpp ci combat bi parce que tamit Zarko naa la wax dara Zarko moom gaan li mu wax ne na nee na yatama teg maintenant tegat si ngeen bokk ay mbër ngeen waaw kon lépp lépp loo xam ne métti nañu Gris Bordeaux dinañ ñu fajal incha allah te moom dina xam ne yii di yooyu quoi xam nga. Hmm. bugguma si sori ndax loolu ñëwagul bis bu ñëwee nag xam nga. dina xam ne jëflante bi waaw dina gars yi nañ ko jëflante ak moom ba mu sax saab waaw di ñaanal Gris Bordeaux doon dam quoi xam nga. waaw di wax booloo boobu mosu fi jóg comprendre nga. waaw dañuy mottali ay ay kannaar rek xam nga mu gën a jàpp rek ñu mottali xam nga jaayante lu bëri jaayante lu bëri hmm. ndax Medina Fass Colobane Gueule Tapée Grand Dakar ndakaaru lépp benn la comprendre nga mhm. du ñu bëri suñu biir kon tey ku nekk war nga mën a tey jii nii xam nga jàppale sa morom su su si lépp lu mu mun ci doon quoi mhm. su nekkee da nga toog gis loo xamante ne lii xam nga ne mu ko jéem a kalam nga woo téléphone na ko lii ak lii ak lii xam nga ñoom ñëpp xam nga ñu doon benn quoi ndax tey jii ñoom ñooy suñu kilifa te si loolu la ñu war a yaree ba ëllëg tamit waaw ñun buñ fi nekkee suñuy rakk ñëw fi ñu mën a tàggat ak ñoom si loolu waaw. Ibou Afia jël nga xam ne mooy armée combat bi jur polémique waru koon jël Ibou Afia dafa war a bàyyi waa jàmm gën Ibou Afia a bàyyi waa côté bële lu ñu wax rek Ibou na fa daal nee na daal moom du génn secteur boobu lan la. booy xam nga tamit tey yow Ibou mhm. du ma la fen dynamique victoire yi mu def nii amaana bu nekkoon yeneen booy ajal na leen ci kaw comprendre nga Ibou du defeyaan du kanaara xam nga mhm. du daw ci nit. Mhm. amaana looloo tax tey jii nii sax carrière xaw a si yenn affaire yi xam nga mais booy yii nii dañoo waroon bëri Ibou Afia ko yar tey yéen ñaar tey bi ngeen nekkee booy mun naa ay ay laa leen xam yéen ñaar ngeen di fréquenté mm. tey bu ko tijjee woon mun nañ yàq émission bi parce que xam naa tey fi mu toll ci yow quoi waaw moo tax tijjee wuñ ko émission bi moom it ñu koy ñaanal na ko yàlla na ko yàlla xaara àjjana quoi mm. deewee na ndaw nag métti na trop mais mooy li ma wax sax du naan kulli nafsi saa'ir xatim mawti bakkan bu ñam dund day ñam dee muy xale di mag na xale ndax dag Médina demoon na fa Médina TV ñëpp dem nañ fa bu wane ni euh, Médina lu xew rek muy phase du côté mën na ñu fay ñëw assister fa indi li nga xam ne mooy suñu contribution euh, tey Fallou tey euh, yan yan souvenir moo des si moom ci ngay mën a nga ñu mën a wax ci moom ak lan la doon wax ci làmb. waaw bilaay law Fallou Fallou sama nit la woon sama lépp la barke Seydina Muhammad mhm. Fallou daal mooy man maay moom comme li nga wax yàgg nañu ànd ci lu bëri xam nga. waaw di ko jaale yaayam bu baax xam nga di ko jaale papam tamit di ko jaale magam Bousse comprendre nga. di wax law man Fallou damaa dund ak moom lu bëri comprendre nga sama waay la parce que alxuraanu karim tey jii nii ba mu yëgee ni daa génn àdduna xam nga am lu ma metti xam mais tamit am ña am ña am yàlla yàllaay bu ñàkk yàlla yàllaay bu dañu xam ne tamit yàlla bu soxlaa xam nga mhm. ñëpp dañuy xaar barki alxuraanu karim sama waay la daal lépp dund nañ ko barki alxuraanu karim te man jàpp ma ni Fallou dem na quoi comprendre nga. Hmm? waaw dama jàpp ni Fallou daa génn ruwam daa génn dugg si man comprendre nga. xam hmm? waaw sama benn partie mën naa wax ni lépp tey jii nii dama koy xoolee comme Fallou ici. waaw te lépp loo xamante ne yéene woon na ko waajuram. Hmm. man bu yóbbu bëgg naa jaayante xam nga. waaw ma fajal ko ko lépp nag yàgg nañu waxtaan ci lu bëri comprendre moo tax ma la tey jii nii sama benn jëmm sama jëmm ji sama xaaju partie bi lépp Fallou yi waaw ndax moom sama waay la sama lépp la dañ doon diisoo ci lu bari si lu bëri si lu bëri. waaw xam nga. Oh, gis naa sax nga gisati benn benn photo yéen ñaar. Mhm. ñu mel ni yéen nekkoon arène nationale taxaw di waxtaan di fekk sa combat la xaw waaw mais loolu loolu loolu loolu Fallou daal déglu ma la law lépp dund nañ ko. naa hmm? Seydina Muhammad lépp loo xalaat ci àdduna bind nañ ko quoi sama waay la barki alxuraan ko ba ba muy nekk si xamal law tey nit ku nekk prison nga woo ko ne ko dama am problème mu lii mu yëkkati alalam hmm? barki Seydi naam te man maa ko war di ko defaral mu yëkkati alalam di ma ko jox comprendre kon kooku tey jii ne am na fu mu la teg fu bëri seen dégg fi dañoo dund lu dañoo dund lu bëri xam nga yaayam doon sama yaay xam nga waaw lépp lu ma métti su ma ko waxee mu fajal ma ko xam nga waaw di ko wax yaay booy ñàkkoo waaw ndax buyoo mi ngi fi waaw kon li ma lay wax rek dafa mel ni ruwa moo génn ci moom rek dugg ci man bépp bépp bépp bépp yéene bu mu yéene woon yaayam man bu maa ngi ñaan barki Seydina Muhammad yàlla may ma ko ma defal ko yaayam incha allah bu neexee yàlla waaw euh, du ñu génn faas parce que bii mooy dernière question bu ma lay posé après ma baale nga gërëm booy yi nga xam ne ñoo fi toog waaw après tamit dëgg naa tamit maintenant am ngeen mbapat bu rëy bu fi teg waaw bëgg naa tamit nga ñëw si mhm. waaw euh, Ada Fass dafa génn tey def benn sortie ne ñetti combat moo ko dese day bàyyi làmb tey yow en tant que frère bi nga ko gisee wala woo nga ko. nan laa koy woo Ada daa moom boppam Ada moomul boppam. mais war na ne barki sëñ non non mais barki Saalu ñetti komba ma dese. waaw dama ne moom tey jii nii uh-huh. moom daa moomul boppam. banaan hmm. day bàyyi lamb wala genre affaire yooyu est a que comprendre ma la uh-huh. nan la yow àdduna di topp sa ginnaaw nit ñëpp topp sa ginnaaw yàgg sonn ci yow nga ne taxaw rek jégi saa ñetti combat am nga mënul nekk nee na dafa sonn parce que nee na tuuma yi nee aara dama sonn man aara dama sonn parce que euh, tuuma bu ne lañ may teg mais dafa xamul ni làmb ak coow ànd te gis nga am na succès yoo xam ne boo ko xasee am far fos lu réer ñu ne yow la loolu moom dafa mel ni bàyyiwu ci xel la nga ko ciy wax ci loolu nee na mais na tuuma yi la nee bëri daal waaw mais ku baax ñu tuumal la mais comprendre nga. Mhm. waaw mais moom na jaayante waa na jaayante xam nga ni ñuy topp si ginnaaw xam nga waaw su mel ne Abakara ay def def xam nga Baye Fall Ousmane. xam nga mu jaayante quoi xalaat si ñooñu xam nga xam ni guddeel nañ ko bëccëgal nañ ko xam nga te tamit ñooñu dañ ko bëgg te yàlla tax te nekkul fii lañ bëgg a yemale carrière dañ ko bëgg a yóbbu fu sori di ko ñaanal xam nga waa lépp loo xam ne dañ koy yóotu rek xam nga waaw di ko waaw yàlla ko jot quoi xam nga di wax CNG tamit moom xale la quoi amaana tey jii nii tamit moom tey su toogee wax loolu quoi comprendre nga amaana sanction bi sanction bi am na solo comprendre nga waaw di ñaan nag gars yi yàlla nañ ko jéggal quoi xam nga mu ñëwaat saison bi xam nga bërewaat yàlla may ko ndam xam nga mu nekkaat ci carrière am ndax moom moomul boppam su taxawee ne day bàyyi moom moomul boppam am boo yu bëri yoo xam ne ñu ngi si ginnaaw waaw di ko ñaanal ndam nag ko incha allah euh, dëgg bëgg demoo Ndiaye kii ngam Gris Bordeaux génn na wax Balla Gaye numéro 2 génn wax ne CNG dafa metti dagg yi dafa metti trop ñun mbëri euh, ñoom VIP yi ñu ngi bëgg a dee wax ma laa yéen mbëri ndaw yi te yow la nga jàngatee li nga xam ne mooy dagg bu metti bi nga xam ne CNG lañ koy dagg yéen mbëri waaw di leen wax gars yi seen doom lañ rek xam nga ndax fii tey jii nii ku am sa yaay ngay dem jox yi quoi xam nga ak say xarit ak say mbokk comprendre nga mm. te buñ la fayagul li nga xamante ne lu bëri la comprendre nga mm. loolu rek mën na la découragé loo quoi xam nga ñu xam ne gars yi seeni doom ñoo fi nekk xam nga seen i rakk ñoo fi nekk ñu jàppale leen bu baax a baax a baax di bàyyi xel ci loolu xam nga persaay sax nga mën a dagg nit ki comprendre nga mhm. nga war ko comprendre jéggal ko su ko defaatee nag waa mais nee na nag yéen mbëri surtout yéen mbëri ndaw yi da ngeen di tarre à part indi ay butéel yu bëri ci làmb ji buñ leen daggee ngeen di jooy non non man loolu mosuma tardé si làmb mais damay damay wax rek quoi ñu bàyyi waaw léegi ñoom ah. xam nga ak ñun ñëpp laay wax sax xam nga mm-hmm. nañ ci bàyyi xel si côté boobu tamit quoi xam nga ñu bañ leen may ñoom lu ñu wax xam nga waaw ndax ñoom waruñu yëpp mbër yi quoi ndax mbër yi ñoo leen di fay ñoom kon ñoom waruñu yëpp mbër yi quoi lañ jox cër mbër yi xam nga mbër yi tamit doole leen cër pour ça ñuy jëllale di jéggale waaw yàlla suñu borom moo ko doole ñëpp moo sàkk ñëpp comprendre nga mm-hmm. moom sax dañ koy toll ñu jéggale kon ñoom pour ça dañuy gëm di jéggal gars yi quoi waaw eh, tey looy wax booy yi nga xam ni ñoom tey ñoom lañ sesi muy waa 31 ñoom Omar booy yi loolu wax tey waaw sama mafia gis nga leen. waaw ba léegi xam nga. Mhm. ñu ngi fi too xam nga di ma jàppale xam nga. waaw ay borom baax lañ ko am seen fay xam nga xam nga dëkkuma fii. waaw peete laa dëkk dama jéggi fii ñëw fii ni xam nga. tey jii mhm. Mhm. waaw ndax yëg leen quoi ndax ñoom samay booy leen samay lépp leen. barke alxuraan kay am seen fay ñoom Omar ñoom ñëpp xam nga di wax booy nag dañuy asikoo xam nga. dañuy am na lu ñu organisé. Ah, le 6 la. le 6 waaw. mooy date bu baax bi. ne leen gars yi ñëw jàppale le mooy date bu baax bi. le 6 septembre dana leen gars yi génn jàppale xam nga li ma la wax ndax booy tamit tuuti nañ trop quoi mais tamit lépp loo xamante ne mi ngi xew si Médina bi xam nga soo leen ko xewlee dañuy soo leen ko soo leen soo leen ko waxee kon na gars yi jàppale leen quoi comprendre nga waaw di ñaan génn jàppale booy waaw waaw mi ngi noonu muy date bu baax bi Saliou Royal Asico 64 ah moom la de ah waaw mooy Royal Asico 64 ñu def bés bu mag def li xam ne la nuit d'Asico ñu ngi koy defee fi nga xam ne mooy Dura Seck kañ lañ koy le 6 incha allah bi dañ koy 6 septembre bëgg na ñëpp ñëw jàpp ci ah mbër yi champion yi ku ci mel ni ci Gris Bordeaux laay démarré ma xam mooy mag Gris message baa ngi noonu jot jot ci nga taalale ko def li nga war a def premier autorité de la Médina ah, muy Bamba Fall premier magistrat de la commune yow booy ñu ngi lay woo ci bés bi nga ñëw jàpp ci parce que suñu ay booy lañ suñu ay doom lañ suñu ay jarbaat lañ oh, bu yoo tey la mooy dernier mot bi waaw di wax gars yi dañu jàppale quoi comprendre nga di wax gars yi ñoo jàppale ñoom xam nga ku su ni ne Mamadou Diakha bi waa Kanama xam nga Ibou xam nga Mamadou Dansokho xam nga Ernest waaw ñoom ñëpp ñu leen wax ñu ñëw jàpp ci quoi Pape Pape borom téléphone Pape Diop xam nga waaw di ko bëggee bu wér wér moom mooy jàpp ci affaire bi bu baax a baax comprendre nga Seydou Baye Fall waaw xam nga di bëgg ñëpp daal xam nga di bëggee Bira Fall Poobar xam nga Laay Booba Aba waaw xam nga Youssou Thiaro yi xam booy nekk si ma Omar ñëpp ñu nekk kaaw ñëpp maa la ñu bëggee comprendre di bëggee tamit waaw Omar borom Maroc di ko bëggee bu baax a xam nga di bëggee ñëpp daal di bëggee sama booy ak képp koo xam ne day jàppale buyo quoi di képp koo xam ne danga may ñaanal yor sa kurus waaw di sonn ci buyo buyo ñu ngi lay fekk ba fi nga xam nga di la na jàpp loxo di la nuyu waaw di la ñëpp di wax gars yi amaat nañ combat xam nga le 22 décembre le 22 décembre ah? waaw mais adversaire na ci gars yi ñëw jàpp quoi na ci gars yi ñëw jàpp ndax persa xam nga waaw Fallou Ndiaye du lenn rek teraanga la ma ji ma ji ko teraanga quoi moo tëgg sama premier combat. Mhm. xam nga ba nii may bëriwaatee 22 décembre xam nga kon tey jii nii moom du ñu gën a góor si dara waaw su bàyyi lu ñu bàyyi quoi xam nga waaw di bëggee ñëpp. waaw di bëggee booy yi ñëpp xam nga di mhm. leen wax waaw rendez-vous le 22 décembre incha allah ñoo ko fa am incha allah. gars yi mi ngi noonu ñoo ko déggandoo le 22 décembre Cheikh Bouye day génnaat ci journée Fallou Ndiaye. nga xam ni ka moo ciy bëri gana combat muy Mor Kankan ak nga xam ni mooy Diop 2 borom soow bi wala bëri ki nga xam ni mooy xale Bawol bi Mor Kankan du bàyyi de. ay sama gars yi nga ne. dof bi kooku dof bi la Mor Kankan mooy dof bi xam nga borom soow kan mooy borom soow bi. Diop 2 kooku dara. dof bi ngay waxal da yow Mor Kankan doomu Bawol bi. ah wax ci buya buya rek la topp booy. topp ñu keneen terminal rek lañuy topp terminal seul. seen bés bi le 6. waaw noonu la koy waajee. noonu la ñu koy leen nang rek. day yëngal foofu rek. ba li nga la walaay foofu yëpp lay yëngal. loolu ci lan ngeen nar a def la ak lan. as as ko rek ngeen yam wala am na ay surprise. am na ay surprise lépp la am. billaahi. dañuy yëngal duro sekk bi yëpp. Ah, mais xanaa léegi léegi pour ñu jeexal émission bi eh, léegi bu yee. waaye lan nga benn benn wala as bu ndaw sax. ah baax na ñëw na. ñoo ñëw ñaanal ñu am ndam. xeebu yee ci xol. wowee Medina ca kaw. wowee moo waral ñu doon gaynde. yaayoo yaayoo yaayoo. I know. àjò.